salaamualeykum waa Sénégal salaamualeykum waa àdduna ñu ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp di leen ñaanal jàmm di remercier ñëpp ñi nga xamante ni si ñi ngi apprécier li ñuy def gis nañu encouragement yi et donc dina tax ñu gën a góorgóorlu lépp luñ doon def ñu gën ko yokk mais tamit ñu ngi woo ñëpp kenn ku ne xalaat boo ci am ni buñ ko defee mbir mi dina gën a jaar ci yoon xeebuñu benn xalaat ku ne loo xalaat ni buñ ko defee noonu dina gën a sell ba nit ñi mën ci jariñu lu bëree bëree bëri ñu ngi lay déglu di rappeler encore une fois que numéro bii ngeen di gis mooy sunu service commercial pour ñi nga xam te ne dañu bëgg publicité bëgg am lu ñu jàllale wala ku bëgg am histoire boo bëgg a raconter incha allah boo ñu contacter dinañ ci waxtaan ak yow. di leen rappeler encore une fois que numéro bii nii nekkul numéro waa Marodi TV numéro waa lu xew TV la ñi nga xam te ne si ñooy def analyse. ñu jàpp ne xëy na message yooyu ñuy véhiculer dina am au moins kenn koo xam ne ne bu ko dégloo dina ko yee ci benn côté bi donc ñun loolu mooy suñu objectif alors tey vidéo bi ñu leen indil nii benn réaction la bu suñu benn frère am ci série yi nga xam ne mooy daw Sénégal donc mënuma wax série yëpp mais quelque ci série yi nga xam ne mooy daw Sénégal ci la jël ay réaction moom mu joxe ko ci donc avant ñu leen di tegal li nga xam ne si moom la wax gis ni ñu bëri envoyé nañ ma di wax que ni ñoom li jallikat di dund ñoom loolu la ñuy dund seen biir néegu sëy donc ma jàngat ki ni rôle boobu jàllika di joué daanaka mën naa ni ñu bëri ñu ngi koy dund tey ji série bi moo tax ñu mën a jóg ñoom di génne li nga xam te si moo nekk ci ñun donc ñu ngi félicité waa Marodi TV ci côté boobu noonu te waxoon naa ko ci benn vidéo waa Marodi TV li tax ñu leen di félicité mooy bu njëkk ñun série yi ñu doon seetaan. nekkul woon série yoo xam ne Sénégal lañ ko tourné ay série yeneen réew lañu doon jox ñu koy seetaan mais ñoom bokk nañ ci ñi nga xam te ne si ñoom ñoo indi ay série sénégalaise série yoo xam ne biir Sénégal lañ koy tourné donte am na ci luñ doon critiquer tuuti mais pour l'instant moom liñ ci gis moom wax dëgg fa yàlla luy jàngale la donc ñu bàyyi leen ngeen déglu li nga xamante ne si moom la wax après ñu dikkaat continuer waxtaan wi salaamaaleykum waa Sénégal lu xew TV maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam maa ngi leen di bëggee lu bëri bëri maa ngi leen di seetaan aussi si YouTube lu bëree bëri bëri bëri vraiment seen vidéo mosuma jàll quoi chaque vidéo bi ngeen dugal rek maa ngi koy bëggee maa ngi koy seetaan maa ngi koy j'aime quoi voilà tey nag damaa bëggoon jàllale benn message bu ndaw si série sénégalais yi quoi voilà. voilà série sénégalais yi quand vraiment maa ngi si gis sam bopp bu baax a baax bu njëkkoon à l'époque dañ doon seetaan ay novela série yoo xam ne ay Nuskrika wala ay Preta ay yeneen série yoo xam ne nag naka su dul noonu yaa ngi gën xam ay yenn affaire yoo xam ne yu garaaw mu ngi ci passé mais kenn mu ci wax waaye temps nag maa ngi dégg ay biri yu bëri maanaam série homme marié xaw ma série boobu noonu maa ngi maa temps yi maa ngi dugg si YouTube bi maa ngi ci gis ay commentaires yu bëri gars yi di ko diingaat gars yi di wax eh, waruñu woon waxee nii waruñu woon wonee nii waruñu woon defee nii xam nga rek te à l'époque am na affaire yu gënoon garaaw mu doon passé si télé yi te RTS rek moo fi nekkoon di teg ay affaire rosa yooyu noonu benn télé la woon ñëpp di ko seetaan xam na loolu moo gën a garaaw te temps yi ñooñu sant yàlla yor nañ ay chaînes yu bëri yor nañ ay télé yu bëri boo zappee benn scène nga gis ci loo xam ne neexuloo mun nga zappee seetaan beneen scène ngeen bàyyi problème yi ngeen bàyyi gaay yi avancé réew lu koy avancé doo lii ci bok bokk voilà bu fekkee da ngeen bëgg Sénégal avancé da bàyyi muy ànd ak monde bi muy avancé mais bu fekkee da ngeen bëgg Sénégal yam fu mu yam rek amul problème ça vous de voir ngeen bañ a diingal Sénégal Sénégal avancé wul Sénégal dafa tardé ngeen génn fi di dal mbuur bi et pourquoi Sénégal avancé wul Sénégal dafa tardé fekk yéen a tardé Sénégal série su su di avancé loo Sénégal ci la bokk Nigéria xoolal seen musique xoolal seen seen seen film yi tey bu ñuy wax Nigéria avancé na mun nañu wax loolu moo avancé loo Nigéria du leneen du leneen loolu rek moo ko avancé loo pourquoi pas ñun pourquoi ñuy xeeb suñu bopp. voilà bu paree maa ngi ñëwaat ci série yi man série bu ma gën a mën a saytaan série boo xam ne maa ngi ci gën a mën a gis sama bopp damay wax sam axulay taala mooy mbeteel waa cees mbeteel ñoom lu ñuy joué amul fenn série yi nag série yëpp lay seetaan bàyyi ma benn série du ma tànn bi bàyyi bee non man série yëpp lay seetaan bu film bi bu ñu ko tegee bu paree dama jël beneen bi continuer noonu laay suivre yëpp te série yëpp dama gis sama bopp mais série boo xam ne ne man maa ko tànnal sama bopp mooy mbetteel boobu bu garaaw la série boobu noonu xam naa ne mosoo leen ci gis ku simmeeku yes des des DPS wala ko koo xam ne da ngeen koy gis muy wax yenn wax yu garaaw yi wala da ngeen ci gis foonante wala leneen même bu ci amoon sax lu ma ci wax dara parce que man taw moom euh, euh, jëluma série boobu parce que amul fonante wala amul leneen leneen non du loolu moo ma tax a jóg série boobu boo gisee ma tàmm ko mooy euh, waa série boobu noonu dañoo yàgg ci théâtre depuis ay depuis ay ay deux mille ay deux mille trois deux mille quatre deux mille cinq ñoom la ñu commencé jouer ñoom du ñu lu ñoom lu ñuy jouer waa Mbettel dañ koo jàng xëy ñi rek. ju jouer film non ñoom maanaam dañoo mbapat boo gisee seen série yi amul coow ñëpp di ko seetaan muy continuer ak nu mu ak mu tege ci temps maanaam doole ci dégg biir wi doo ci dégg war nañ def lii war nañ bàyyi lii maanaam mbàppat moo koy waral voilà loo jàng jàng jàng rek tari ko maanaam xaw ma wolof nu mu koy waxee sax boo jàngee dara ba mokkal ko rek. saa yu la yeewoo nga doon nelaw rek boo yeewoo mun nga koo tari parce que danga koo jàng dama ko laajaat lu nga joué woon démb joué ma dama bëgg nga joué ma ko tey xam nga loolu xam nga loolu di di nga sikki sàkk mais waa Mbetteel ñoom dañoo mbapat quoi voilà vraiment bu paree série boobu noonu idole aussi si lu mu neex la mun naa wax sax idole waa idole am na ci yenn yenn maanaam yenn acteurs yu ancien mais idole boo gisee mu garaaw aussi c'est nouveau act euh, yenn acteurs yoo xam ne ne maanaam ku mel ni Malick xam nga Binta Tafa xam nga rek yenn acteurs yoo xam ne peut-être man mun naa ne c'est la première fois ma gis leen quoi ci li ñuy joué si si si si bi dafa nice voilà tonton Tafa xam nga maanaam. damay bëggee film boobu aussi lu bëri bare quoi voilà mais homme marie nag ci laa bëgg ñëwaat terminer ko sama vocal quoi homme marie foofu noonu awma ci acteur principal quoi mënu ma ne acteur bi bu génnee rek moom may neex wala kii bu génnee moom may neex wala kii laa bëgg seetaan si film bi wala damay xaar comme lu mooy seetaanee Pod Marichou man pot Marichou moom man moom mooy sama acteur moom laay bëggee voilà te moom série yëpp bu ñu ko tegoon. ñu ne man naa si tànn acteur bu ma gën a neex si film yëpp moom moo lay lay tànn wala gaan boobu noonu dafa osé mënu la muy joué te acteur boo buggee sori si yenn yi dangay osé te bëggoon naa wax benn affaire moomoo maa ngi koy ñaan bu mu yem rek ci Pod Marichou quoi xam nga acteur boo bëggee avancé dangay dem di mbapat si yeneen écrits yi quoi boo ne si waa Mboro yi yeneen série buñ la buñ la soxlaa demal. yow mun nga jouer rôle bandi mun nga jouer rôle directeur de de de société mun nga jouer maanaam rôle yu bëri parce que da ngaa boo bëggee sori si aar bi boo bëggee am dara si aar bi bul yem rek ci waa mbarood yi bul yem rek ci Pod Marichou quoi am na yeneen série yu may gis yu bees sax lu ma gisee publicité bi wax dëgg yàlla dégg dégg rek lay wax souvent damay xalaat est-ce que moom moo warul woon dem si yeneen série yu bees yi xam nga rek. pour gën a yokk kotam quoi parce que yow da war a am dara ci aar bi waroo rek yem ci Pod Marichou voilà loolu moom yaa ko moom quoi suñ boobu yaa ko moom. wala à part ça aussi maa ngi leen di jégalu ah xam naa ne wax yombul parce que di nga wax yenn wax bu mu paree nga yaakaar ne yaa ngi lu ngay wax dafa baax fekkee dara baaxu si mais yëg-yëg rek la ñuy waxee quoi. voilà yëkkati ko moo tax ñuy wax li ñuy waxee nii quoi mais lu ci baax rek nga xam yàlla suñu borom la lu ci bon nga xam si ñun la quoi wala à part maa ngi sant euh, waa site bu baax wala lu xew tey loolu laa gis site bi de maa ngi ñaan euh, abonné yi nañu abonné bu baax a baax a baax a baax a baax Sénégal ci kanam. donc mbokk yi ginnaaw bi ngeen dégloo li nga xamante ne si moom mooy xalaatam ci série sénégalaise yi keneen ku ci am xalaat également mën nga ko def ci commentaire yi. di dellu encore une fois di tuub di jéggalu ñëpp ñoo xam te li ñuy wax laal na leen lu fi jub rek ngeen xam ne ndimbalu borom bi la mais lu dëng ngeen xam ne ci kiy wax la parce que nit matul di tuub di leen ñaanal jàmm di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah merci à tout